Serigne Ndiaye ak Kandi jëlal ma Serigne Ndiaye ak Kandi ma nga taraxulaayoo morceau bu vert vert morceau bu weex waaye waaye ñoo leen ñu gars jàpp leen ci rek ñu ngi leen koy ñaan ñu ngi leen koy ñaan

waaw dañ leen dañ leen a ñaan rek ñaan Papis yaa ngi yàq suñu affaire yi Papis jëlal ma Papis toppal ma Papis toppal ma ko doole barke maam Seera Fall ñoo man ñoo ëpp doole ak chiffre laa lay wax ñoo man ñoo ëpp doole di nga ne la ma xombal waxoon na ma loolu Hey, what the fuck?